bu tabaski jotee waaw ba ñu di xaar yaa ba ñëpp ñaanalante keroog ca bés ba ku la tooñ. Zëbi. waaw mën ngaa dugal 500. waaw ay millions. mais instant bii nii maa ngi war a jàpp 1 million 500. 1 million 500 mais dafa million 500. yow mi yaa ko war a jàpp. waaw mais tuuti. ah c' est vrai nee ma da ngay kàcc waay. ah non non ma caaxaan la. ah dugal téeméer loolu neex na ba dee léegi li mu manqué laa bëgg ngeen. ñaata la manqué mi ngi manqué vingt deux mille cinq cent. loo wax sànq ne moom nga yor. deux mille cinq cent man yàlla ñëw mais loo yor deux mille la. deux mille tuuti la nga ne moom. waaw la ñaari mi fekkee waxee naar bu ci dugg de. mun ma yow noppil. dama lay expliquer naar bi baaxul de. nga mel ne dëkk du bongo. ku koy jox ay coupon moo baaxul. jërëjëf man soo ñëwee si ma teg si axe. naar bi du bagage bu ko sax def métier. dama nga liggéey bàyyi kii nii. daaw de aw béy laa. Hmm, béy bëri na wax de. aw bëri na guddi nag laa ko indi guddi. ah ah waaw ah, ah, ah, waaw teel a rey. a na laay kay ah rikaw la kay. na laay bokk fan nga moom. ah ngaa buggi. ah kon yow dégg nga wala bu baax. Eh, bët yee sew rek. waaye kii si maanaam baal tooñ. house. tuddul house. ah tuddul house bàyyil ji bépp def jàmbur bi nga naan house. dégg nga maam ren. Hmm. aw quatre cent mille laa yëkkati. teg ko sa loxo nga dem marché. te saa reel. loo gis jëndal bul bàyyi dara. incha xam nga xam ne quatre cent mille duma ko du ma ko passé ak yow. quatre cent mille pareel. xar mi xar mi bokku ci. quatre jox quatre cent mille. maa jox quatre cent mille tabaski ren. nijaay yow. Mhm. yow mi waaw yaa ma jox quatre cent mille. pourquoi ça gëmoo ma. maa koy xaar bu keroog mu koy gis. sa yow gars yi yow ñeme nga yàlla de. waaye yow doo comprendre mën a defee nii xam nga booy moo comprendre waaye maa yow xam xamante ne. du loolu alal booy bi xamul. daa <laughs> ber kii du ci dara. kii du ci dara. naar bi a nii. ku xonkole naar baa ngi lay taxaw. yow yaa naar da cee bokk daf leen naar daf leen naar. mënoo dem boo boo ko gaañee yóbbu sa million. am na bu xew léegi. sururururura sururura sururururara suus suus taj suus suus suus suus suus suus suus eh, dégg daal. bu tabaski jotee waaw ba ñu leen di xaar yaa ba ñëpp ñaanalante keroog ca bés